yéex yéexaangee daal di am ci googale séddale wax na tamit région yi nga xamante ni ñoo sori lool te taw bi dafa bëri fexe nañ ba nag séddale gi daal dafa yég waaye nag bëri na tamit ay région yoo xamante ne mbir mu yegg gu fa waaye nag nee na la nga xamante ni moo leen sonal loola lu jëm ci wàllum pad yi ñoom sax daat nañuy résilier maanaam dakkal nañ ay contrat yu bëri yoo xam ne doxoon nañ seen diggante ak ay fournisseur la ko waraloon nag mooy la nga xam ne moom lañ leen commandé woon dañu ko joxe maanaam ca waxtu ba nga xamante moom lañ ko soxla woon ñu Aly Ngouille Ndiaye ministre bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew mi moom nag kenn ci ay jege ñaaleem dafa am covid 19 ba taxoon ñu daal di koy testé moom Aly Ngouille Ndiaye waaye nag dafa mujjee négatif moom sax dañu koy quarantaine lu toll ci quatorze jours ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi réew mi quotidien mu ñuy xamal naan ñu yaaxam mbay moom nag yàkk mel ni xame ki nga xamante ni mooy ma jambal jaañ sulu na ay mbóota nee na ma jambal na suuf sa ñàgg nee na ma jambal jaañ am na suuf sa mbaambi lor nee na ma jambal jaañ am tubaab jalaawa nee ma jambal jaañ am na suuf sa wakaam nee na ma jambal jaañ am sa ngor nee na ma jambal jaañ am na suuf sa almadi nee na ma jambal jaañ am na suuf sa grand dakar nee na soxnas ma jambal jaañ am na lu toll sax ci almadi lu toll ci six cent mètres carrés waxi yaa xam mbay la ma ngi ci yéen kaay gii di réew mi quotidien yéen kaay gii di libération mu ñu xamal naan ñu lu soxal wàllum njàng mi ak ma mi Mamadou Talla mi nga xamante ni moom fan yi ñu génn yàkk nañ ko lu mel ni xamee joxar xamante ni ñooy jàngalekat yi ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu woowu àjjuma bi ñu génn ngir nag xool ana yan pexe la ñuy nas ba commencé waat njàng mi ak njàngale mi yéen kaay groupe promo consulting bii di réew mi quotidien mu ñu xamal naa ñu lu jëm ci wàllum covid 19 ak gàllankoor gi nga xam ne andi na ko ci réew yu bëri rawatina fii ci Sénégal loolee nag tax na ministre bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllum économie di Amadou Hott moom nag dalal na délégation MEDES maanaam kuréel gi nga xam ne moo ëmb entreprise yu Sénégal te Malick Diop daal di jiite boobule délégation bi mu leen dalalee nag waa MEDES daan nañu koy jox ab document boo xamante ni daal dina tax maanaam économie bu Sénégal daal di demaat ci kanam ginnaaw Covid 19 bi loolee sax ministre bi daal di wax ne boobule dana danañu ko daal di càmbar ginnaaw loolu nag programme boo xamante ni dina daal di tax sax ñu suqali li nga xam ne mooy économie bi programme de résilience économique et sociale programme boobe nag dina tax secteur bi ñu daat leen di jàppale bu baax a baax wa jëmoon nan la ñuy def ba économie bi bañ a daal di nërmeelu yéen kaay gii de la turbine moom mu xëy ci révélation yu doy waar yi nga xamante ni journaliste bi di Cheikh Yérim Seck daan na koy jëm ci Baté Plus ak Fami Farez moom journaliste bi Cheikh Yérim Seck daat nay wax ne xaalis bu baree bari ay milliards la ñu fekk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy libanais yi moom bati Plus te milliards yooye du dëgg du yoon ndax ñooñee bu ñu ko téelee seen bopp likit likit dañu fay impôt loole baaxul ci réew mi loole nag Cheikh Yérim Seck def ay révélation wax ne gendarmerie ci boppam moo teg loxo lu toll ci 4 ci ay milliards waaye nee na waa FBI yi ñoom ñoo ngi Sénégal te am na ñetti ministre yoo xamante ni maanaam soo moytuwulee nag ñu leen daal di dóor ab mandat d'arrêt international am na nag ay responsable yu mag yoo xam ne mbir mi daal nañu say takrib ministre bi ñu dénk wàllum justice ci réew mi di maître Malick Sall moom sax Cheikh Yérim Seck nee na dafa daal di takk ci mbir mi l'observateur daal ñuy xamal naan ñu journaliste Cheikh Yérim Seck moom tey jii daal nañ ñu koy convé ci kanamu section de recherche yéen a kaay gi nee Sénégal nag boo moytuwulee américains yi seen bopp ñooy boole Sénégal ci réew yi nga xamante ni daal maanaam dañuy yëngatu ci lu jëm ci wàllum blanchiment de capitaux ak réew yi nga xamante ni nag dañuy financer ñi nga xam ne ñooy terroristes yi Ousmane Sonko ci biir yéenekaay gi moom nag demoon na ci fi nga xamante ni mooy waax yu Sénégal ci littoral bi daat nay wax nag ñi nga xamante ni ñoo saax saaxee littoral bi di def lu leen neex jamonoy Macky Sall nag lu leen neex moom mën nañu ko daal di def waaye nag ginnaaw Macky Sall lépp dina daal di leer képp koo xamante ni maanaam tabax nga mënul tabax danañu ko daal di daanee la teg si yóbbu la nag fa mbaxana doonee benn amul négociation amul benn loo xamante ni danañu ko si daal di masla réew mi ko dajee ñu fekk fa ministre bi ñu dénk wàllum justice moom nag daal di nay wax ne ñi nga xamante ni daal ñoo caxte caxte li nga xam ne mooy littoral bi maanaam mën nañu leen a topp wax na ci procès Lamine Diack bi wax na ci Seydina Fall Bougazali Jean Paul Diaz bàyyi Barthélémy Diaz moom na ci biir yéen a kaay gi la xam xamle nee na Sénégal yi laay waxal na leen leer ne Macky Sall ci boppam ñetteelu mandat maanaam daf ko bëgg ci réewam Sénégal Sénégal Jean-Paul Dias ne ñi ànd ak ñoom laay waxal nañu ànd ak seen fit ànd ak seen xel bañ a gunge Macky Sall si ñetteelu mandat xaw ma nag ba xam askan bi ñoom danañu ko nangu waaw wala deet yéen kaay gii di source a mu xëy di ñu xamal nan ñu ñi nga xamante ni ñooy waa Sen'Eau ñoom xanaa dañuy fonto askanu Sénégal bordel dëgg la ñuy def quartier yu baree bari ci Ndakaaru jamono ji amuñu ndox yéen kaay gii di sunu làmm ñu fekk fa Alioune Sarr moom nag daat nay wax ne du moom moo teg ay sanction arbitre yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci làmb ji kaay mu ñu xamal ñu jamono ji nag ci championnat bu Espagne course bu metti moo am diggante Real de Madrid ak FC Barcelona yéen kaay gi di Stades wax ci coupe d'Italie ak final bi nga xamante ni moo war a dox diggante Juventus ak Naples yéen kaay gi ni Kalidou Koulibaly moom nag dafa fas ne dem nag Juventus fas yéene defante ak ki nga xam ne moom mooy Cristiano Ronaldo.